boy kaf Touba nak def nak liggéey bi mbaa muy dox bu baax. way alhamdullilah Pulo. sante yalla bu wér. ah kon baax. wa Pulo man ba mi may deg president di ko joxe. am nga ci wala. waw boy kaf Touba dépp biir semaine bii lol la bu gon laaj. ma ngi deg bi senegal ñep di wax jàppal mbam bi bay mbam bi lan mo xew ci mbam bi way president moy joxe ay mbam fi ak 6 mois course mbam la organiser fi senegal ku premier yow le président di premier ministre. bi bu premier man le premier ministre. voilà exactement Poulo. ah yow kon sa bay bi bu premier sa bay nek premier ministre. eh c'est eh, kuñu de. Wa. xanaa yow kon sa papa si papa amul wala do dégg papa bi ngay duggal ci débat bi. Wa na mal wa leg boy Café Touba léegi mbaam yooyu nu def jot sum boss non wul pulo yow soo ma joxee 500000 rek ma indi la sam mbaam ba fi la ngane yow diri bu tol yow jox ci temer jun yow fan mbam jare temer jun dek bo dug am mbam mbaam yi wal ken mom len nga mbam mbaam jun umu don pulo mbam bi du dara da nga fatte sam mbaam bu jele premier yow lañuy fal premier ministre lolo ci am solo di wa baax na loolu dinañ ci waxtaan après mbam bi boy kaftuba yow sum karit baax desa, ndeysaan danga baax wa pulo lol dafa lèr mais des fois yow ngay déconné nak quoi fi ngay nek rek di nampali kaña i nambal kaña yow amul nit num nambal kaña di nambal gina kan mooy nambal kaña <laughs> pulo wahin la loolu du dara yow tamit He, kam la la wax lu leg la la wax sa mbaam bi ak sa ba pare nekk fii naa ma nampal kañ kaw ma jinax kaw ma mbóot carence baay bii mooy nampal kañ bi <laughs> kee xaw ma dangay kool fële xaw ma yow laay waxal wuyu mu fii sa bopp bu tàcc bii mel gaz bu ndaw mille deux cent moo